bon li waral arrêté bi parce que euh, temps yeb dafa am phénomène bo xamné dafa am ci dëkk bi et c'était depuis 2600, mais cette année-ci dañu gis né phénomène bi dafa gëna yok surtout ñun fi ñu dëkk muy Bargny parce que gis nañ né xalé yu ñu bari en tout cas ñu ngi jël gal yi euh, pour dem Espagne donc pour lan pour cette teraanga pour mën a dimbali sen seen i euh, mais ñun ñëpp xam nañ né lolu aussi ay risque la parce que ñun Bargny fii fi mu toll nii wax fa dëgg yàlla euh, ñu ngi fiy compter ñoo xamante ne wax dëgg yàlla dañu gaañu te ñi ñëpp ñoo dëkk ñun ñëpp ay mbokk lañu bu dulee sa rakk sa mbokk bu la jege la te wax fa dëgg yàlla euh, géej gi neexatul euh, am na ñoo xam ne dam nañu bu yegg ñuy ñaanal yàlla ñuy yegg yàlla na leen yàlla defal sutura ak teraanga foofu lu ñu seeti ñi xamante ne aussi itam jot nañu gaañu ci yoon bi am ay blessure nekk hôpital yàlla na leen yàlla dimbali ñu génn ak jàmm ak salaam ñi xamante ne nag jotuñu woon dem bu léegi période bi ñu ngi leen di ñaan ñu arrêté ndax géej gi neexul ndax kenn bëggul sa doom jël gaal gi di dem di dem Espagne gaañu ci yoon wi ku sañoon sa doom buy dem day dem ngir seeti teraanga andil la donc moo tax en tant que jeune en tant que éducateur may lancer appel boobu que jeunesse su bariñ wala jeunesse su Sénégal nañu xam ne période bi du période boo xam ne war nañ ciy jël gaal yi parce que ay risque la. bon am na information bu ñu joxee que am na gaal goo xam ne dafa euh, dafa chaviré euh, fële géejawaay euh, ñu ne Bargny la jégoon am na am na pratiquement vingt cinq vivants ñoo si am ak plus de trois cent morts mais information boobu du information bu fiable parce que bi ñu dégloo témoins yi xam ne ñoo newoon ci gaal yi ñoom nee nañu gaal gi déparé wul ñi donc ñun euh, gëmuñu ne ñooñu ay waa Bargnois de tout façon ay waa Sénégal lañu ñu ngi naxar loolu di ko mettitlu mais Bargny am nañ fi euh, ay décès yoo xamante ne effectivement ñu dëkk Bargny la ñu doon dem ci mbëkk mi gaañu ci yoon wi te loolu ñun ñëpp am nañ ci ay mbokk am nañ ci ay dëkkandoo et jàpp naa ne loolu wax dëgg yàlla phénomène la bu doy waar. pour wan la ne ampleur ampleur euh, liy xew ne muy immigration clandestine bi mbëkk mi. dafa dafa dafa jéggi dayoo mooy suñuy suñu école suñu classe yi il y a une plus d'une dizaine d'élèves yoo xamante ne dem nañu Espagne da ngay toog sa classe di rappel ñu ne la diw dem na mbëkk donc mu doon lu doy waar loo xamante ne je pense que ça mérite vraiment une réflexion une une une réflexion approfondie nit ñi dañ ci war a dañ ci war a xalaat surtout autorité yi muy local lu di national dañu war a xalaat ci mbir mii